Euh, man nag fii laa taamoo julli iid yëpp fii laa koy defee. mu Mangara président UDP euh, doon julli si iid fii si grande mosquée bu Touba. si ginnaaw Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides ak mboolem dañu teer Mourid yëpp bi mu génnee si jumaa ji kàddu yi la yëkkati. Euh, Touba laa dëkk nit nag di nga cosaanoo fenn dëkk fa ci ay mbokk dëkk fa ci deret waane foo taam mu def ko sa résidence principale foofu a dëkk man Touba laa dëkk loo tax ma julli si fi tey. donte bokkul woon si élection présidentielle yi. waaye di nemmeeku bi mooy. askan wi ña ngi ko wutali adhésion yi chaque jour day gën a yokku loole nag jàpp na ni confiance la si digganteem population bi. nga xam ñoom seen politique ñu ngi ko teg si wàllu dimbalante wàllub développement. politique bii ñu gis ñu koy def ñoom jàpp nañu ni kat wute na ak yi fi amoon. loolee bokk na xëy na si li xiirtal askan wi. Euh, Touba confiance bi ñu am ci ci am ko ci ñun ñëpp ñun ñi ànd. jógandoo bëgg liggéey dara ci réew mi liggéey loo xam ne day jëmale réew mi kanam jëmale askan wi kanam ñi ma ko àndal ñu ciy dox guddeeg bëccëg te feeñunu ñenn ñi du mënu leen a tudd seeni tur ñooñu ci kóoluteef gi ci ñooñu la njëkk jóge ñooñu tamit ñi leen wóolu ñëw wóolu nu nun ñëpp wóolu ma dinañ jóge fii wër biir Sénégal seeti mboolem soppe yi ngir gën a yaatal liggéey bi ndax jàpp nañu ni kat seen vision ñëpp xaj nañ si. mooy fas yéene rek euh, euh, sol sunu dàll wër sénégalais yaatal ko fexe yokk mbooloo mi pour mbooloo mooy doole pour nu ànd liggéey euh, li askan wi soxla nu mën leen ko defal. ndax ñenn ñi dañ laa wóolu ndax xam nañ la ñenn ñi dañu laa bëgg ngir yàlla. ñenn ñi li nga leen proposé muy projet de société dafa dal seen xel nu dugg ci euh, fas yéene cee def seen loxo fas yéene cee jàpp liggéey ci comme ko ko moom ndax lii nu def moom kenn moomu ko bu kenn birimaa ko moom bu kenn keneen a ko moom. lu nu mel bu amee nag jàpp la ni leadership bu Serigne Abdou Karim Mbacké ñu ko fi teewal fii si département bi moo ko indi ci vision bu sore ba ak ni mu jaxasoog askan wi xam lanu bëgg mu si taxaw si la mu gën a gaaw a gaaw. Euh, dafa am benn leadership bu particulier sëñ Abdou Karim Mbacké di ko incarné te nit ñi wóolu ko parce que kum ci woo ni la kaay ci liggéey bi ñuy def danga nga ciy sawar lool boo ci ñëwee ànd ci Pastef goo xam ne day yéemee loolu nag lim ci bëgg mooy fexe euh, gën a dëgëral taxawaay yi gën a yokk pas-pas fexe ba nga xam ni bu li ñuy tudd UDP ñëpp ràññee ko Touba ñu ràññee ko ci euh, gox yëpp. dellu si waat na si élection présidentielle yi mu jàpp ni choix bi mu amaloon ci ginnaaw coalition Diomaye rëccuwu ko ndax gis na ni kat demande sociale la woon. taxawaay bi nu am nag ci élection présidentielle day taxawaay boo xam ne dañu doon jàpp ngir yàlla ngir yàlla ji mooy lii askan wi soxla woon muy réew mi soppeeku dem ci yeneen loxo amoon nañ même yéene bi nu gis ñoo xam ni mën nañ koo def nu dem ànd ak ñoom jàppale leen ci jàppale boo xam ni. Euh, taxawuñ ci laaj dara xaaruñ ci woon dara lii moo waral euh, sunu taxawaay fii taxawaay sunu taxawaay bi nu taxaw ci présidentielle lii moo ko waral waraloon. tey jii Touba jàpp nañu ni bokk na si benn si ay base affective bay say wewu tànk waaye nag fi lay jógee dem si biir réew mi ngir yaatal mbooleem activité am. Euh, Touba dafay base naturel xaaruñu échéance sax li ñu fi am dañ koy jiima téye jiim koo yokk. ngir mu mën a jariñ réew mi maanaam politique bi yaa ngi may wax ñenn ñoo xam ne dugg nañ ci sax daaw na politique maa ñoom ñoo bokkoon àtte daaw ma politique li ma ci dugal xam naa moo leen ci dugal ji ma taxaw am baat ci réew mi pour lu fiy soppeeku mën cee dugal suñu kàddu mën cee dugal suñu loxo ngir réew mi jëm kanam. Birima Mangara jiitu UDP leen gu yëngu si wàllu politique ci biir Sénégal ancien IGE nekkoon fi ministre de la République sol na bu politique am ngir teewal askan wi.